waaw mi ngi noonu El Hadj Baba Maal moom it mi ngi noonu lii daw yaram kon yaa naa ni tey ñëpp ah, képp ko mi ngi noonu génn sanfandoog ak Youssou Ndour ah, ci tiis bi leen dal tey ji waaw. fait pour ce pays je pense que Thione a vraiment participé aussi à faire a ce kontaan naa ci sa teewaay kontaan